benn fan ci weeru mai di bis bi àddina bi yëpp jagleel liggéeykat yi Sëriñ Akassa Samb di ci jagle sargal ñaari liggéeykatu seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te jaare ko ci mbindam mu tedd mi di ko yëkkati Sëriñ Abdoulahi Ñang bu Ndar ak Sëriñ Baye Moussa Gueye bi Ndar di ñaari jàngkat yoo xamante ni liggéey nañu lu rëy ci xasaayiti ku tedd ki Seexul Xaadim bis bi nag Sëriñ Akassa Samb doon leen ci sargal jënd ñaari oto yu mucc ayib lool teg ci itam ñaari kër waaye teg ci itam deux cent cinquante mille gasoil ak sëriñ boole mbay bi nga xamee ni itam ràññee na njàng mu sell suñu akasa sàmb jagleel ko enveloppe boo xamante ni itam lu bari moo ci nekk ci euro mboolee mbokki taalibe yi nga xam ni it ñoo nekkoon ci tant bi ñu ci ëpp daal di jël ay neexal teg ci lu ni mel ñu daal di jox kon Baye Moussa Gueye caabi otoom sëñ Ablaye Niang nag bi muy ñëw ngir jël caabi ji sëriñ ak sa samb daal di sàkku ci tànt bi ñëpp daal di jóg taxaw àndandoo ak jës bu am solo bi nga xamante ni itam moom la ànd moom la jàng ñu daal di àndandoo yëkkatandoo ko mu nekk bis boo xamante ne itam boo am solo la ginnaaw bi nag dëpp nañu suñu ay micro ñenn ñoo xam ni itam ñoo fa teewoon ku ci demee ni sëñ Jili Ñang TFM muy rafetlu lu ñu ak sëriñ Xaadim Kebe di jàngkat bu ñu ràññee ak sëriñ Xaadim Guèye di jàngkat bu ñu ràññee ñoom ñëpp indi kàddu rafetlu lu ni waaye itam doom ji daal di sant sëriñ Akassa lool muy soxna Ndeye Niang mi nga xamee ni itam min nañ ko ci daaju sëriñ Ablaye Niang. sëriñ décoré ko jox oto mu doon loo xam ne comme ni bari waxee day fayeeku taxawaayam bu am solo boo xam ne am na ko nga yëg tey xanaa xol bu set barki Serigne Fall léegi lañ koy waxtaane maag sama mag yi maanaam Serigne Touba ñëw na rek lan la ñuy wax ndax moom nag comme ni ko suñu ak saasaam boo waxee rek demul fenn yónniwul kenn ma nga toog ca këram gee liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba wàcce ko nag mu toog ca jàkka Sam dee moo ni njëkk a jóg moo ni mujj a tëdd moo ni njëkk a tëdd moo ni mu njëkk a jóg moo ni moo tëdd barke Serigne Fall boo yeewoo loo gaaw gaaw da ko fekk ca jànka ja mu yore xasaay itam di saa bis bu nekk mi ngi wàcc alxuraan boo ñëwee teew mun la toogal maa ngi soog a jeexal kon dem ba caane Mamour bu ma ci xeli al wërë wërë mbay sa barke Serigne Fall yàlla na ko ji amiin kon dawal di ko dawal di ko dawal ba ba Serigne Fall ñoo ngi ñaanal si nekk sa sa agaleel na yéene julli yëpp gis nga njabootam gi ñoo ko gën a yéene barke Serigne Fall parce que saa nag tey du tey ji kese du tey kese la ko soog a defal mboolem kuy jàng xasaay nag gar na bëgg nga bàyyi Ablaye di ko defal teraanga nan nu ñaanal ñun doomu ñi balaa lenn di xew sunu borom na ko bàyyi ba mu teral ko ñun suñu jëm barke Serigne di ñaanal nag sunu sunu sunu waa sunu ñun ñii bokkunu baay ndey ak baay la ñaari bay rek ñaari bay ñaari bay Muhammadu ni sa ala lam yaate muy bés boo xam ne nii boo am solo la mu mucc ay la lool képp koo xam ne itam jànkatu xasaayit nga war nga roy lu ni mel